asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokk bitim réew ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñëpp di sant ñëpp ñëpp di gërëm ñëpp ñëpp fii seen émission bi bi nga xam ne moom moo nekk fii ci eh, prestige bàyyi leen ñu xel ku ne nañu bàyyi xel Pa Nice ak waaju baax ku ne xam na ko ñëwaat nañ tey fii ci prestige Thiès war fee def ay bagage yu garaaw lu waaye nawoon bu yow nga tël ci génn mm-hmm. ndax xam naa nag gars yi namoon nañu ci internet bi del si waat nañ nag ak façon bu ne ak feem ak i manin bu ne bu ne bu ne nañu manoon démb tey la waa lu a aay tey la gën a doy waar loo ci xamul waaw baax sëriñ si wax nañu wallaahi ñu tëtti ci wàll wi wax nañ ngeen tëdd ñu na ngeen wallaahi aaya wu ne wàcc na dañuy dem ak yéen ca gatsa gatsa waaw gatsa gatsa kenn duñu jiitu gatsa ndey gatsa la wax gatsa la ñu dund ak yéen kenn du ñu jiitu sa gat sa ndey ah, loolu kenn du ñu jiitu ñun waaw waaw te naaj gat sa gat bu la kenn jiitu sa gat sa ndey wallaay wallaay nga jël sa yaram wi na dung dung waaw jël sa hamburger na ko dung jël sa baaram tàbbal ca biir di ko sanab ay bi lay xat yeneen saay saay yeneen band yeneen band yeneen saay saay daa am leneen lu ci yeeyu lu bokk da jël sa baaraam def def sa awra dafa ñaaw nag daa ñaaw ndegam wa daa ñaaw déggam jël sab caméra nekk sa meeg yaakaar yow rek a fa nekk. waaw di sinap sa bopp ak. di envoyé ay di naan ay eh, waay bilaay xam ma kañ ñuy tàggoo ki xaj. man xam ne hamburger seer gi mu seer. waaw jafe gi mu jafe. waaw ngeen na ko watt ci biti. waaye na mu làqoo nag mu làqoo fa mu làqu. fa mu ak ruqe. ak ruqe. daay caaxaan jëlee ko fa mu ne de ak ruqe. gis nga fa ko yàlla làq. da koo làq ca biir la ko de. na bu kenn laal na bu kenn laal. te la. billahi gaay na non non non. waaw léegi gaay xem nañ baaraam. mu yow bul ne gaay yi looy maraatu léegi dañ koy maraatu. dañ koy maraatu waaw surtout maraatu gi ñu ko tàmmee nag. cam dañoo tàmmul bon léegi góor ñi. cam jër ñu léegi calta moom daa ne ci ñoom daa sax ci ñoom dàq. yow jigéen balaa ñoo am lu leen neex dëgg ñu ne ci. ne ci jël saw làmmiñ. waaw seex ko mel ni daal ñun. di seex man ku ma ci tàmmee rek moom guut mi moom léegi noonu guut mi moom. Ah, doomi raam yi na ngi ci na. ah waaw ndaw sa na. Ah, ci suuf waaw di yuux di duul day duul. day duul day duul. buñ waxé mo ngank ci man sax loolu bu la ci nit ki maté bu bu. bu ko plaisir jàpp ba matt ko sax ko yob man man fo jëm fo jëm. képpet té loolu lola lola lola lola li gaay yi sax nona loolay li neex ci ñom loolay li neex fofu lañu ñuy li neex waye nak lañ lay léeg jox ko jox ko jigen nako sax ah. xam ma nako sax nga sa musiba nag. non sax bi non sax bi retroversé la. retour ah ñëppay saxant ah. ah yow kan Rico Galas gaay def. Rico Galas. xam nga da ngay gis góor gu ne watt doomeeram bi. ceeb joxe sa bop jox sa bop ñu ngank sa sa bagage. sox ko mel ni ku yor micro mel ni mel ni daal koo xamee daa nekk ci concert rek wala panaay sa waaj baax mu taxaw rek yor seen micro nii rek di di di di ci wax. ah Illaah ñuy saaga ak ñu ci aay. yàlla buñ la ci jàpp. man de rikoo woon nañu fa buñ la fi rikoo. <laughs> ci bis. laa ilaaha maa ci am ñàkk jom sama gal ba waaw. jàpp ma dugal ma ci nekk si kenn bi may woo téléphone nan ma ñu ngi may bëgg a ma damaa wax yàlla naka la ma seex rek mu ma tëppéeral wallaahi te ndaw si daa garaaw mu yow tek na fa ay xéetu maña maña yo xamna la la tek na fa cristal yoy la def teg fi passi wallaahi teg fi dongu ginar tek fi wu lem man dal ma jek jek sama yaram fu bën ban ne mu roof ci cristal may inondé nag nga ndox mi genn fu ne ci ram waaw mu mu dongu ginar da nga nangu da nga da nga nangu kuy sa yaay manako yaay sama yaay deural kay kuy sa baay ma ne ko yow mën a mën jigéen laa mën a utal ma baay nga wutal ma baay man pare naa ci dunia man sama bëgg ma ni faaru oto naan nii di daw day dox day dox day mel ni volant wëndal rek mais nice baax gis nga loolee ñu naan plaisir. Uh-huh. góor ñu dañ koy mën jaral lu ne nag. ndax boo gisee lii ni ñi def plaisir dong lañ ci dugal. laay wax nguruñ rek du nguruñ rek nguruñ. cam a ba. man bi léegi du ma joxe sama bos ku ko ci nguruñ mu leen ngeen di def da ngeen yi ngeen jël déggal suñu ko bëgg dongu naan da ngeen waat saa ba ngi naan sax xooma ñoo xamante ni moom mm-hmm. sëgg ci ñoom naan da seex waaw man seex géej ma ko gënal man laay laay seex yëpp seex géej seex ko gën léeg-léeg nga ne ko ubbeet mënu kunnu man élewaas boo tëj ca wallaay day mel ni ko élewaas laay wallaay kat gay mel ni lu kenn xam mu calte ba te dégg leen am na ci imbécile yoo xam ne duñ cas bañ dara seen ko moom rek ñoom nañ ko seex nañ aw rek dib dib sexe jigéen ñu ñu ñu ñu dugal seen gémmiñ. mais naa loolu mel ni ko nam jaru lay rek ci ngay ñaané yalla ci ngay jàngee alxuraan gémmiñ goo go xamé ci ngay ñaané yalla pour mu may la motax Sénégal pour yalla may ñu dara dina jafé ndax sa gémmiñ gi moo war ñaan yàlla tiim alxuraan di ko jàng nga jël sa gémmiñ gi na ko watt ci whatsapp bu jigéen la li whatsapp lii boo ko xamul li whatsapp na ko ci ŋàpp na ba pare nag sangu janaba nag mënuñu mënuñoo sangu janaba nag pare ñu xëppoo ndox rek naan yàlla maa ngi lay ñaan sa place ah. dañ fay dàqe sa ndey sax benn yoon dañ la eh. fay dàq ci lu gaaw dañ ma liggéey rek waaw fekk sa yaram wee sobe ba yàqu sa yaram wee sobe alxuraan dëgg la caaxaan àndul ak foo wallaay baax caaxaan àndul ak foo baax waxal doomee raa bi nag ñëwaat na ñu ngi ci prestige Thiès waaw ñu ngi ci gatsa gatsa ñun moom kenn duñ gatsa ak ndey waaw gatsa gatsa la ñuy dund ak yéen ba mu jeex fu mu waaye yebu gis nga baax jigéen ñi dañoo xalaat xalaat te tàmm lu bon. mais raay lu da nga koy jox plaisir li ngay da nga koy am. léegi jigéen ñi xam nañ fii. walaay tamaate yàgg. walaay nañ sab saab. jàpp ci bisaab boobu bi xam nga. bisaab boobu yàgg bu ñuul bi waaw waaw maa ngi la jaafi la ñu ne di ko lëngmat doomi raame xam lu yàlla boo ci fekk waaju sëq la nag jaaf yoo xam ne day mel lu yunu baax eh, mas naa seer laa lenn su ndaw sax dama ko nii na ko waaye li pirek lam lu mu daa teg crédit fii Prestige Thiès waaw dëkk bi nañ ko régler ci Prestige Thiès fii lañ koy régler moom na kocc na koroj doomi raam dinañ yeex de billaahi wallaahi doomi raam doomi raam bi dafay jeex bandit waaw day jeex day jeex rek ak fii rek Thiès rek man yeneen si internet laa bëgg ngeen tëj seen bopp dañoo prestige. moo gën nag ndax ngeen di joxe arrangé wul réew wax. mais fii ah. dëgg la ñuy teg. dagg gu wala pexe xaaral la. waaw xulu xaq walaw kaana ah, la ñuy ne. waaw kay xaq ji mu xulu xaq jooju. la ñuy ne moom dañ ciy sukkandiku bu wér a ñi li ngeen di wax ci télé bi daal li ngeen di saaga. ñu ne ko waaye dañuy saaga ndax yeeyoo saaga. sa ndey la ñuy def waaw waaw ana sa ndaam nga naa ma lan da koy teg ci yoon. waaw waaw. eh baax nag baax nag naa la xam ne da nga cees gii. waaw daa bëri doomee raam yi fi ne. yéen ankay cees yi doomee. ay ankay cees lañ ne maa ngi nii biir cees nag ngam prestige cees. doomee raam ju def yëf yi may wax. xamal ne maa ngi sa kaw cees. génn dëkk ñaari gaar gi maa wax ni baax. cees am nay wuyu. wuyu cees la nga am nay wuyu cees gii. moo bari saay saay. man foofu man la lay baax. sa waa ji da nga ko fàtte xanaa. bi. Serif waaw. mu tàkku ca bàcc na ma ngi dem. ci xaju day dul day dul day dul mo nuuru ci buuj. xam nañ lepp day nuuru ci buuj. imbécile bi korom nako jabar ji def. Serif da tok ba yag yàgg. san tok ci jabar ji jabar ji diko jabar ji diko tag mm-hmm. nan ko Serif da nga bax ci man. mosoo dugg àll mosoo guddee ya àll. fekk xamul Serif da kontaan di genn 1000 francs mm-hmm. diko sanni jabar ji. nak protect lako sanni waxo dara sanni ko kapp. jabar ji nukkul la mu naan ko CA 5000. di dugg CA 5000 yaa mën a duul. Protek nga jox la CA 5000 doomee raam waaw. ah gars yi bari te duñ fi du doom de bari nañ fi fii ci Thiès. teraanga. wallaahi Guèye. <laughs> am na solo laay ay teraanga laay moo dem xaj. wéyoo ngoog. booy seetu xaj ñëw ci géej. waaw waaw ñu ngi nii de ñu ngi fii lañ ne. su bakken beeg avenir bi waaw lañ waaw dañ koo gas fii Thiès te njëkk bay sa wewu tàgg. fii la ñu njëkk ci Thiès. ndax nag day suñu gox di suñu dëkk. waaw boo xamee ñëpp li bëgg. fii la ñuy rakkiste defar fi ba mu normal doori wuy feneen waaw waaw Ndakaaru Thiès daal ñu lañ koy Ndakaaru Thiès Ndakaaru Thiès bu ñu ñëw sa ca Ndakaaru ñëw ñëpp ci Thiès bu gën yàlla gëj naa taw walaay walaay a taw walaay bari na accident yi bari na walaay baax lu ko waral walaay baax baax waxtu ko ah. wallaahi ma ne baax li ko waral du lenn loolu mbon mbon mbon ngan gi ci dëkk bi ndax réew mi daa bari na ñoo xamee mbon moom balay na saf saf ñor leen xom am na lu ma gis Thiès loo gisul Thiès